Dakar FM, Midi et yéenekaay yeeg ngeen jëf bay ak kondetoo ñaa ca police le quotidien nañu un couple placé au commissariat du port ñoom ñaar ñëpp mu di bay ma jiite woon këru carte gi di lonaas ak kondetoo ñang ma nekkoon ab PCA am démb ca commissariat la ñu fanaan dossier ba fa tax a fanaan observateur nañu mi ngi ubbil yéenekaay bi rapport ba cour des comptes defoon atum 2008 ci bay ak na mu jiite woon kër googee di lonaas rapport ba moo ko dugal ba mu dugg ne def ko ubbi woon ci international commerce banque ak i koppar yu mu fa doon dugal ak di génne ci turu LONASE te rapport ba la mu wax moo di koppar yooyu yeeg dugalante ba ak génnalante ba ca compte ba ñi sàlla woon wàllu xaalis ba ca kër gi di lonas yëguñu tiinuñu bay laak la ko nar a sànq journal bi nañu bokk na ci campagne Abdoulaye Wade 2007 nga xam ne campagne boomee lu ci ëpp la ca dem ci xaalis bay la woon a ko joxe ne gaay yi fu ñu soxlaa xaalis bu ñu yegtee rek ñu yabal leen ca lonas ne leen dem leen seeti bay la woon yéenekaay bi nañu ba ci Bougane Gueye Dany ma nga xam ne moo gañe woon marché publicité yeeg panneau publicitaire yi ñaari milliards amee woon ba mu demee di ko fayeeku ji gaay yi ko yebal ca lonas ne ko demal ca bay la la yéenekaay nañu bay la wan démbam ca Lonase ak na mu yore woon kër googe moo ko nar a te nag bay la génnagul ci mball gi ndax bu waxee ba ci rapport Cour des comptes beneen rapport Cour des comptes ak beneenub rapport boo xamante ne ji ARMP di autorité de régulation des marchés publics ñoo ko def ca Lonase ma nga leen di xaar journal bi nañu waaye bay la wan moom xaarul dara ndax nee bu ñu ko naree sànk mboolem lu mu xamoon dana ko wax libération ne ñu cay toppe bay la woon dañoo yaakaar ne lu woyof la waaye mbirum état la lu mu gàtt-gàtt mbirum état la moo xam ne ñetti ak fukki ak benn ma nga ca te du bay dong moo ca nekk la mu ca def lépp dañ ko koo defloo bis bu waxee ba wax compte ba mu ubbi woon ci international commerce banque ay kilifay diine kilifay politique danañu dugg ba mel ni rubba bay la wan ak kondétaw ñang Sud nañu ñoom ñaar ñëpp a dugg couple perdant lañu kenn ki di bay la wan Walf Fadjri nañu tey ji di Hillary Clinton mi nekk ci ndakaaru bërki démb ba léegi tey ci moom la mboolem yéenekaay yi xëy yëral enquête yéenekaay bi dikk ak ci daje ba mu am njiit réew mi démb journal bi ñu ñoom ñaar ci seen daje ma ñaar la fa toogee woon wàllu kalkin ci diggante Sénégal ak Amérique ak wàllu tàggante bu kii a baax ka des na ko Sénégal a gën ci xët mu njëkk la Soleil kaddu Hillary Clinton mu fay xamle ne Sénégal Amérique boole na ko ci politique bu yees bi fas yéene mu raw laa seen nañu ka mu toroxal kay te tudd ko kay moo di Nicolas Sarkozy populaire ne ko ba noppi nag teg ci tóoj waa Y'en a marre padd observateur nañu Abdoulaye Wade la koy padd ngi ñëw ubbil yéen bi ICE di inspection générale d'État ñooy topp fukki milliards ak ñeent yoo xam ne nañu Abdoulaye Wade daf ko làq ca New York am na mission bu ñu yónnee ci États-Unis ngir mu lijjanti yëf yi te yëf yooyu journal bi nañu du Abdoulaye itam wàcce jikko du ma wàcc te wàccu maak ñi wàccoog Sénégal ñaan leen ñu bañ a wàcc seen wu yoon bara wàcc gaynde njaay maa nga ca football ba ak jeux olympique yay am ca Londar maa nga ca football ba ak jeux olympique yay am ca Londar direct info nañu Sénégal qualifié na ci quart de finale ya qualification boo xam ne l'histoire retiendra quart de finale ya Sénégal yegg wal fajri sport jàppee ko ngalam le quotidien nañu léegi na gaynde ya ñoo nga dugg ca quart ba jëm ca Mexique maanaam ci gàttal quart de finale jeux olympique ya gaynde Sénégal ya réew Mexique la ñu war a wàcce ko bërëm wutal si ndakaaru xool si fii lu toj ñi toj ñoo nga ca ndar ubbil journal bi lu doy waar moo fa xew di ñoo xam ne bu ñu wooree ba ngoon jot alaw ma làkk sumtuja jolli nit ñi wut tàndarmaak ndox ak café gu ñu dogo ñoom la ñu def mooy raab seen yamba ba ñu jekk taal di mëyi mëy noonee la ñu ko jàppee ba polisub ndar yëg leen dem jàpp leen noonee la ñu ko jàppee ba polisub ndar yëg leen dem jàpp leen ñi na kenn du ñoom xiif ni mu metti nga war a di taal yamba